waaw asalaamaaleykum ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen dalal seen kër fii si Ndiassane ki wax ak yéen ñoon maa ngi tudd Amdi Sidi Makhtar Kounta nekk doon sët si xalif général Cheikh Bou Sidi Makhtar Kounta nekk it euh, coordinateur cellule culture et communication de Ndiassane. ah macha allah euh, communication bi euh, par rapport ak gàmm gi. defe naa li nekkul lu bees Ndiassane am li nga xam ne mooy cellule culture et communication euh, ñun poste bi nga xam ne ñun ñoo ngi koy jiitee ñu ngi ko jëlee ci am sa Kunta moom mu fi nekkoon coordinateur yaakaar naa ni presse bi ñu bëri xam nañ ko ñu bëri min nañ ko ndax yàgg na ak ñoom te it liggéey na ak ñoom lu bëree bare bare bëri yàlla def taawam dem ba xat ñun ñu ñëw wuutu ko continuer liggéey bi nga xam ni sëñ Amza Kounta mu ngi ko doon def cellule bi nag ñoom boo xoolee ñoom sëñ Amza bokk na si ñi nga xam ni ñoo ko gën a taxaw bu baax a baax baax ba jamono ji boo fu mu egg nii ba lu muy jàppee dañuy léegi li nga xam ni moom mooy liggéey bi euh, def na si liggéey bu ama amam solo tey ñun mun nañu wax ni ay disciple am lañu tey fu ñu jaar moom moo ñu won yoon bi ndax léegi na si daaw ñun ñoo doon liggéey ak moom. nekkoon ci ginnaawam di ko suivre mu ñu won yoon bi kon dañ naan alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw ba ñu ñëwee ren ñu ñu teg ñu ci place donte ni matuñu ko mënu ñëw sol dàllam mu jot ñu jot mu jot ñu waaye it ñu ngi def li nga xam ne mooy seen kért laay kàttan ba yaakaar ji mu am si ñun qualité bi mu am ci ñun ba teg ñu fii si post bi ñu daat koy mattalee kon defe naa cellule bi sëñ sa daanaka moom lañ ci gën a taxaw ànd seeg ki nga xam ne mooy suñu président di Ousmane Gueye Ousmane Gueye moom mooy suñu président Ousmane Gueye c'est mooy maire Saly di l'honorable député ki nga xam ni moom mooy lañuy wax njaga ko ne moom mooy vice président bi man ma nekk coordinateur bi boo xoolee cellule bi dafa ëmb ay différents médiums yu bari parce que fii si Ndiassane suñu kër gi lañ ci am ay médias ce qu'on appelle des des comme de médias locaux ce sont des sites en yoo xamante ni en ligne la mais ils de nombre de quinze quinze la ñu léegi nag ci quinze yooyu ñu ne au lieu que ku ci nekk di demal sa bopp euh, ñu quoi pas ñu boole leen daal di créer benn base bu solide boo xamante ni cellule bi dina am ay techniciens cellule bi dina am ay cadrage dina am lépp loo xamante ni euh, luy doxal communication léegi nag ñu boole loolu lépp daal koy organiser loolu moo indi structure bi nga dégg mooy cellule culture et communication de Ndiassane ñoom nag macha allah ñuy liggéey liggéey bu am solo. wax yàlla ndax ñoom liggéey bi su ñoom la njëkkee yaakaar naa depuis màggal Touba ba léegi ñoo ngi fii di liggéey nekk ak ñun di liggéey kon donc cellule bi noonu lañ ko tënkee ci wàllu organisation suñu taxawaay nag mooy veiller ci li nga xam ne mooy communication kër gi veiller ci communication kër gi fexe ba fépp foo xamante ni non seulement pas Sénégal kese dans le monde entier parce que Kunta du Sénégal kase kunta boo xoolee Sénégal ñoo gën a néewle kunta kon donc kunta fépp la si àddina bi yëpp la li koy firndeel mooy gàmmu Njaasaan bi tey boo demee ci nga xam ni moom mooy ci euh, péncu ba ña fay nekk di nga gis différent étrangers yu fa nekk nga war a xam ni kon kunta du Njaasaan kese liggéey bi nag yem moo tax yemalewu ñu ko Njaasaan ñu gën kuy yaatal ma nga xam ni ku ci nekk foo toll di nga gis image sëñ bi veille tamit si image sëñ bi ba nga xam ni lépp lu ñu bëgg rek ci visibilité bu ñu bëgg dinañ ko am voilà léegi gàmmu ren bi tamit li nga xam ne organiser nañ ko ci wàllum liggéey communication bi boo xoolee première act bi ñu njëkk a def mooy on a fait on a bouclé les réseau sociaux parce que actuellement jamono juñ toll nii dafa am benn deuxième monde ce qu'on appelle monde virtuel léegi beneen monde la boo xamante ni ñun ñëpp nous sommes connectés parce que doo dem ci benn kër te doo fa gis xale bi si gën a ndaw xale sept ans sax dañuy am numérique kon gars yi fexe nañ ba créer beneen espace monde boo xamante ni ci le domaine numérique la léegi nag foofu noonu li nga xam ne mooy li ci ëpp doole muy réseaux sociaux yi loolu fa lañ njëkk njëkkee suñu communication boucler ko de faire des challenges daal di animer pages yi créer des communautés yoo xamante ni de communauté de partage lay doon une fois ñu am affiche wala dara dañuy gars dañuy dugalandoo loolu réussir nañ ko en premier acte beneen acte bi sur le euh, si côté visuel jalousie defe naa yéen ba ngeen di dugg si dëkk bi bu ngeen xoolee gis ngeen changement ay ay des affiches yoo xamante ni muy euh, ngénte li tey ku ñëw xool rek ni ngénte li voilà da nga naan waa mais ngénte lii la mooy ngénte li yooyu noonu fekk na c'est am na ñuy wax sax naan da ngeen si waroon def gàmmu Njaasaan ngénte li pour ku xool affice bi xam ne lii gàmmu Njaasaan ngénte li la après nag ma daal ma daal leen wax ne ma ne ko d'accord xëy na ñu xamul sa liggéey ñoom mun nañu wax loolu mais ku xam communication communication dafa am effet tey dafa am yoon boo xamante ni boo ko defee day tax yoon nga mun a am feedback bu normal comme par exemple tey communication bu amul coow du communication sama benn góor loolu ma doon wax mu ne ma kunta mu ne ma communication bu amul coow nekkatul communication moo tax ba ñëwee def ngénte li kese c'est juste que pour li nga xam ne mooy këru Ndiassane am li nga xam ne mooy suñu identité loo xamante ni suñu identité la loo xamante ni suñu appartenance la parce que boo nee gàmmu dafa yaatu ndax yonent ti sallallahu alayhi wa sallam donte ni ñoo si gën a yey waaye dañ ko bokk ak ñëfu tey boo nee gàmmu sa xel day dem ci Tivaouane boo nee gàmmu sa xel dem ci ñaseen boo nee gàmm ñëppay gàmm partout au Sénégal mais nag comme ginnaaw Ndiassane ñun doo nekkuñu lu tuuti ci bis bi ndax ñun ñoo moom ndax jur sa doom yaa sañoo ngénte te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa Ndiassane ay sët direct lañ ci moom loolu tax na ñu sañ am fitu tuddee ko ngénte li euh, mooy ñoo tax ñu ñoo bind ga euh, ngénte li di gàmmu Ndiassane waaw organisation press bi xam naa yaakaar naa ni ci déclaration bi porte parole euh, xaw na leen junj tuuti moom ci ay waxam rek ma àbb ay waxam mi ngi wax naan euh, yéen journalistes yi la nekkoon ci nu yéene dëgg dëgg dëgg mooy daal leen yi teg ci conditions yi favorable taxawu leen ba du gën fi am benn gàllankoor ndax loolu mooy njaasaan njaasaan suuf la soo xamante ni. Euh, ku fi képp ku fi ñëw rek maanaam da nga war a am nekk si jàmm ñu dalal la si jàmm ndax loolu la ñu xam waaye soppite bi ci am mooy li nga xam ne mooy site bi nga xam ni fa ngeen ni nekk yàlla dafa def ren ak comité d'organisation bi ñu wax ni euh, dañ ko délocaliser parce que bu ngeen xoolee fii ci wetu résidence bi la doon nekk mais ren dañ ko délocaliser yóbbu ko ci la case des tout petits kii mu ngi nekk si wetu institut islamique bi boo xoolee mun nañ wax si waaw ci ginnaawam rek ci wetu institut islamique bi la nekk soriwul nag parce que am na ñoo xam bu ñu ko déggee bu ñu déggee délocalisation bi rek dañ naan waa ñii dañoo yóbbu sori fekk na soriwul boobu sori waaw donc loolu la ñu kii parce que liñ ci namm rek mooy gën a am organisation bu mutu aj rek parce que résidence bi ñu nekk nii. dañ doon nemmeeku ci jamono yi weesu que ñi nga xam ni moom mooy euh, dugg ak génn bi da cee bari lool lool lool ba tax na ñu ne loolu comme que góor gi moo fi nekk fii di dallu te góor gi wax dëgg yàlla dañ koy sakkanal bu ñu lépp loo xamante ni bruit la loo xamante ni désordre la buñ ko mënee éviter ñu daal koy éviter moo taxoon ñu délocaliser yóbbu ko fee te feeñ leen yóbbu tamit jàpp leen ne la ngeen daan am fii ngeen di am foofu danañ leen teg ci conditions yu normal lépp lu ngeen bëgg ak lépp lu ngeen soxla rek incha allah ñun dinañ ci taxaw bu baax a baax a baax beneen bi it di wax tamit ci wàllu accréditation yi loolu di leen xamal nii daanaka ren dañoo décider euh, dañuy def ce qu'on appelle un travail ciblé avec les médias parce que daw seetlu nañ ni médias yi bëri nañ loolu suñ nee médias yi les presses en en ligne yoo xamante ni ñoom tamit si lañ bokk mais bëri nañ bëriwaay boo xamante ni. ba gàmmu gi weesoo certains yenn suivi yi gisuñu ko te it on a on a des choses avec mais gisuñu si certains résultats léegi nag ren ñu ne ak comité bi ñu ne dañuy def li nga xam ni moom mooy euh, média ciblé am ñoo xam te dañ leen ciblé jox leen seen accréditation su ko defee nag léegi lépp loo xam te ne war na seen diggante ñoom ñu daal koy taxawee waaye nag ñu jàpp xam ni rek Euh, ku ci nekk na nga am compréhension xam ni liggéey ak defar ak organisation moo ci tax a jóg. su ma déggee du ñëpp lañ accrédité. déedéet du ñëpp dañuy ciblé. voilà télé mag yi ba ci site yi. télé mag yi waaw ci cérémonie officielle bi loolu defe naa euh, la koy faral di ëpp di ko muy am mooy ci wàllu micro yi la parce que boo xoolee. bu ñu amee plus de ay centaine de médias yu ñëw léegi parmi centaine de méta médias yëpp ñu ne ñoom ku si ne da nga bëgg a dugal sa micro problème day daal di am parfois di nga gis ñenn ñi di incarner la loi de la plus fort ñëw ne man maa yor télé bu mag bi sama image moo sama mikoro moo war a dem léegi pour daal di daw loolu lépp euh, ma daal di nekk ne que damay jël li nga xam ne moom mooy patch patch bi bëgg ñëw benn benn micro mooy dem. léegi yeneen sites yi képp koo xamante ne soxla nga son dangay ngay dem jëlee ci partie ba bu ko defee dootul am désordre beneen bi tamit ci wàllu organisation tente ba euh, yéen ñi nga xam ni yéen ñi caméraman yi dañ leen wutal benn dañ leen wutal benn espace boo xamante ni c'est espace réservé dinañ ko yaatal nag parce que daaw defoon nañ ko mais daa xatoon mais nag nombre bi daf ñu xawoon a bett tuuti waaw parce que daaw li fi ñëwoon ci si média kenn xamul nu mu toll dama à peu près rek mais kenn xamul nu mu mais dinañ def ay barrières yoo xamante ni kenn dem léegi nag à un moment donné nous on va s'organiser euh, parce que da ngeen soxla pour jël ay PC parce que boo gisee li may waxee ni sax xam naa dañ ne waa ci xanaa technicien la évidemment ñun ay technicien la ñoon avant ñuy nekk coordinateur on était sur le terrain dañ doon filmer dañ doon dem ay programme dañ doon def lépp ba keroog yàlla dañ ñoo dénk ñu li nga xam ne mooy suñu fos bi kon donc defe naa ñun yéen dinañ déggante ndax seen coordinateur technicien la léegi nag ci loolu euh, li nga xam ne mooy PC bu ñu ci eggee dañ may ay benn ñu dugg ci manière civilisée su nekk jël sa PC génn benn par benn nga xamee ne cérémonie bi dina démarrer euh, benn désordre du am parce que si cérémonie bi ren am na soppite soppite bi mooy Ndiassane dañ doon baaxoo di def cérémonie bi à part ginnaaw tàkkusaan ginnaaw tàkkusaan waaye ren vu que ak climat bu ñu nekk ñëpp xam nañ ci nawet lañ nekk lu ne mun na la bett beneen bi tamit temps bañ daan am ci cérémonie ba temps bu ndaw la woon diggante tàkkusaan ak timis dara xaju fa te ñun ñun yaasaan waxtu julli fu ñu fekk lépp luñ mënoon def dañ koy bàyyi defe naa ni daaw gàmmu gu firnde la firnde la si ndax bañ ñu demee ba heure tamit jot ñun dañoo ànd ak ñëpp julli ñëpp bu xoolee julli bi julli nañ ko mais xaw na yàq tuuti wàll organisation léegi nag pour éviter tout ça ren moo tax ñu décidé ne cérémonie officielle bi dañ koy def li nga xam ni moom mooy ci suba à partir de 10 heures encore une fois ma ci lancé appel di ko wax suñu mbokku médias yi ñëpp à partir de dix heures la cérémonie officielle bi di commencé li nga xam ni moom teel a ñëw bi dañ koy sàq pour ngeen teel a ñëw def seen emplacement. ñu jox autorisation ñu jox badge dañuy dañuy dugg waaw. du waaw médias yi xam yi moom mënoo tere ñëpp bañ a ñëw mais ce qui est l' essentiel mooy ñu jox li nga xam ni mooy seen accréditation yi. mais waaw dina am contrôle. waaye nag ñenn parce que loo gis tamit toute règle am exception parfois tamit dinañ dinañ doxaale li nga xam ne mooy compréhension des fois yéen ñi dina ñëw ci nga xool sa organisation nga xam ne lii mën ko si dugal ñu dugal ko si yenn kaay bu amee da nga leen dugal sans accréditation nga gérer ak ñoom parce que tamit wax dëgg yàlla bëgguñu filistrer kenn ci am accréditation ak ki amul yëpp bëgguñu filistrer kii kii kenn lu ñu bëgg mooy ñëpp kontaan ku ñëw Ndiassane bëgguñu ngay mer. pardon. Mhm. Mhm. Mhm. waaw di wax alhamdulilah rabbil alamin ndax dugg liggéey bi moom doore woon nañ ko si bisimilah rahmaani rahim ba léegi ñu ngi ci ñu ngi ci liggéey bi daanaka egg nañ ci li nga li ñuy wax mooy phase finale bi euh, li ñuy wax suñu mbokk taalibe rek di leen dalal di leen dalal di leen xamal ni comme sama moo bi may faral di wax. képp ku jóge ci kër ñëw fii Njaasaan xamal ni sa kër nga ñëwaat ndax fii kër taalibe la ñun ñu ñëpp bañ ne ko borom Njaasaan si loolu la ñu nàmpatal amul différence entre sëriñ ak taalibe ñëpp ay doomam lañ njabootam lañ kon képp koo xam te ne am nga yéene yéene sa yéene na nga fas ko ñëw Njaasaan jii nii xamal ni loo ci ñaan loo ci nas nisëb te nga liggéey sàq tuuti barke toujours man foofu laay insister képp ku ñëw gàmm fexeel bu fekkee dangay ngay déplacer benn weñ ngir boroom Ndiassane ak maam guddi maamam bi def ko barke boobu noonu dina la dal ndax su boroom dëkk bi amul lu dul bisu maamam kon donc di leen dalal loolu di leen ci bàyyi xel bu baax a baax baax di xam ni Ndiassane ubbil na porte ñëpp gan yi ñëpp dinañ leen yi lépp lu war si ñoom dinañ ko def ak ñoom. waaw ci côté lien neutre bi euh, loolu lañ yéene woon pour def ko. mais xam naa ni si de manière technique gis nañ ni dina indi ay quelques gàllankoor ndax on essayé nañ ko daaw mais am na tuuti gàllankoor mais nag ren dinañ xool bu fekkee dina am rek incha allah ñun on va discuter ensemble bu ngeen ñëwee seen mise en place ak ñu.